wala talab sàkku nafyu ni ki laa yuqda alayhim fa yamuutu laa yuqda alayhim nafyu weddi la deesu leen rey aywa faawu jawaab ga dikk fa yamuutu ana lu ko nasab an ju ñu xada faw kenn du ko tudd ci gannaaw faa gi fa an yamuutu aw talabin wala ci gannaaw talab du dëgg ni ki soo ne idrib abdaka fa yastaqima du dëgg ak beneen misaal boo seet ci alxuraan wala feneen ah ah waaw talab talab rek laa la wax talab kay moom juróom-ñetti yëf la ndaxte borom yii nasab ci gannaaw faawu jawaab wala waawu maaya juróom-ñeenti yëf lañu ah naf yu mooy benn ba juróom-ñett ya ca des nag ñoo di talab kon nahyu talab la amru talab la du'a u talab la tamanni talab la ard talab la ah istifham talab la ah istifhaman amran wa nahyan wa duha ardan tamanniyan lafdan xaw ma ar tamanniyan wa lafdan fata juróom ña dañ koo boole yooyu muy lim dañ ko lim ci ajaruma kon maanaam bayt bi da nga naan an an day mubtada la nasaba nasab na mu daare wa satruha te mbir moom ak sat ak làq ko te mooy xasaf ko xat mun lu war fu mu koy defee nga di baada faa i jawaabi nafyin wala jawaabi talab naf yu leen la talab nag juróom-ñetti xeet la istifhaam ak lamroog yooyoog na nah yoog duaa oog max day ni yu sell nag la ñu wax yu piire fasiha ila sulaymana fanastariha yaa naaqu yow naaga gi da koo tarxim ci ni daaw yaa naaqatu mu ni yaa naaqu yow naaga siiri doxal ana kan ci am lag bu gaaw ilaa suleyman fasixan bu yaatu ilaa suleymaana ba nu àgg ci suleymaan waaja muy tagg fanastariha bekkoon nu noppalu an jakoon nasab ci faagoogu dikk ci jawaabu lamru te lamru talab la mooy siiri doxal waxal beneen ah ba ngoog laa tadrib zaydan fa yadribaka laa tatxaw fiihi fa yaxilla aleykum xadab duaau ah rabbi rabbi ixfir lii fa nu ma ko waxee falaa acdil rabbi waffiqni falaa acdila an sanani saacina fi xay fi xayri sanan wala nga ni sunani saacina fi xayri sanan fi xayri sanan rabbi waffiqni lamroo ngoog maanaa du aa oo ngoog talab la yàlla yàlla nga ma defal tawfiq fala adila benn du ma jéng kon adila fii lu mu daari muñu nasab ak an ji ñu xadaf ci gannaaw faaw jawaabu talab rabbi waffiqni fala adila waxuloo fala adilu fala adila an sanani saaina ba xëy na manees na net sunani saaina fii rek xëy na sanana sananu ab tariq a sunanu jamu sunnatin sanan mufrad la sunna sunan jamu la sananu tariqu an sanani saaina fi xayri sanan maanaam ba duma jéng wali si yoonu ñëy ñëy jaar ci ngën ji yoon fa hal lana min sufaa fa yasfaau lana listifham fa yasfauna la tax waxul yasfauna an juñu xadaf ci gannaaw faaw faaw jawaab googu te jawaabu tamanni waxal jawaabu listifham listifham wal ard ak ard itam alaa tazuurana waay fa tuhaddisana talab mooy al talabu biliin talabu gaaral rek ñu di ko wax ard waay diw ay waay diw boo fa dikkoon ma doo fa ñëwa waay ba waxtaan ak ñun alaa tazuurana ah yabna alkiraami alaa tadnu fa tubsira maa qad xaddasuuka fa maa raa'in ka man samia yabna alkiraami yow doomu gaa yu baax alaa tadnu ah man ndax doo jege si xam nga néewuloo ko uddunu kon loolu lamar dafa dëgër waaye waaw alaa tadnu waaye ndax doo doo jege si waaye tee nga jege si fata fata fatub sira maa qad xaddasoo ko bekkoon nga gis li ñu lay waxtaane fatub sira faagu an mu nasab tub sira bi fa maa raa in doon ku gis doonul ku gis kaman sami am mel ni ku dégg yam ca de gis a gën a woo taxdit waxal lawla axartani ila ajalin musamma rabbi lawla axartani ila ajalin musamman fa asaddaqa asadaqa fiil mutaari la ila ajalin qaribin laani a cosaanu asadaqa fa atasaddaqa fiil mutaari la Eh, waaye nag eh, soppi nañu saat taaga saat sukkoon ko fa asaddaqa maanaam fa atasaddaqa moo doon cosaan mi ngi mel ni innal musaddiqina innal mutasaddiqina moo doon cosaan innal musaddiqina wal musaddiqaati asluhu innal mutasaddiqina wal mutasaddiqaati fa asaddaqa asluhu fa atasaddaqa feelu pour nga fi xam ne mot feelu mu daari la ya yaa laytani kuntu maahum fa afuuza fawzan azima fa afuuza soo ko noonu yooyu ñooy talab juróom-ñett lañu soo ko boolee naf yu mu juróom-ñeenteel naf yu moom lenn rek la ndax moom xabar la naf yu xabar la isbaat ak naf yu yëpp xabar lañ talab nag du moom moom insha allah du xabar lu la xamal ni du xabar ab xabar dañ cey mën a wax ni wax nga dëgg mbaa waxoo dëgg waaye insha yëpp kenn mënu ko ci wax te talab yëpp insha allah am roog nax yoog duaa oog amu ci leen loo mën a wax ñun la waxoo dëgg wala wax nga dëgg est-ce que nangam am na mën nañu ni wax nga dëgg kay mbaa waxoo dëgg wal waawu kalfa in turid mafhuma ma kala takun jaldan wa tudhira al jaza nee na wal waawu waaw kalfa moog faayam ci dégg nga loolu nu wax ni wal jawaabu bil faa'i wal waawi ji mu wax ci ajaroom te man di leen wax ni jawaabu juróom ñeenti yëf la juróom ñetti talab yi ak benn naf yu seen jawaab mu ànd ak faawu sabab yi ak kenn commencé woon cee jàng mu ni waaw wal waaw it kal faa moog faayam ndax ajarooma nee na la wal jawaab bil faa'i wal waawi wal waaw waaw kal faa yi comme faa la noonu in tufit su fekkee dafa jëriñ moom waaw yi mafhuma maa maanaam maa waawu maiya waawu yor maanaam maa kooku da ngay jawaabam bu dikkee jawaab bu dikkee ci gannaaw talab wala nafi dégg nga day nasab mudaari ak an joo xam ne du feeñ mukk kon kon loolooy tax ñu tudd faageeg waaw yi ndax an ja koy def da dul feeñ seen gannaaw misaalam ci gannaaw nahi nafiyu nahayu tere kooku kon talab la laa takun bul doon bul nekk jaldan ku dëgër dégg nga ku dëgër ku jàmbaare wato xira ànd ak ngay feeñal al jazaa ak muñadi jaza mooy adamu sabri bokkut ak faza bi maanaa tiit faza mooy tiit jaza bokkut ak tiit maanaa muñadi la xëy na jege yoon ak tiit waaye bokkuñu de ñàkk adamu sabri sabru ak adamu sabri muñ ak muñadi jaza wato xira lu ko nasab ànd yu ñoo xadaf ci gannaaw waaw waaw maaya wii nga xam ne dafa dikk ci jawaabu nahyu te mooy laa takun wa baada gayri nafyi jazman ictamid in tusqit ilfaa waljazaau qad qusid feel jooju ñu daan nasab dégg nga ak an ju ñu xadaf ci gannaaw faa ak waaw dégg nga dégg nga bu dikkee ci mboolem xeeti talab yi juróom-ñett suñu ko dawloo dégg nga soo ca bàyyee faaga nasab laa yuqda alayhim fa yamuutu idrib abdaka fa yastaqiima dégg nga kooku ay talab la dégg nga moo kooku talab la léegi soo xadafoon faagi te bëgg mu nekk jumlay jawaab na mu nekkee woon te nga dindi faaga kon la ngay mën a def mooy léegi mu daal di omi jasam ko dégg nga dégg moom la ni wa wa tamit jublul jasman jasamu mudaare moom mu nga daan nasab baada xayri nafi ci gannaaw lu dul nafiyu nafiyu benn la talab yi juróom-ñett nahyoog lamroog duaaw wax naa ko ba tey lu ci dul nafiyu nag moom kenn du ko jëfe nii waaye bu dikki ci juróom-ñett yi ci des su fekkee da ngaa xasab faaga te bëgg jumla ja nekk jasa jawaab ni mu ko nekki woon kon itamit jublul jasman jasam baada xayri nafi ci gannaaw adaatu bu dul nafi yi ci des in tusqit ndegam da ngaa rotal da ngaa xasaf alfaafa wal jawa jazaau te mu nekk jazaau jawaab xat xusi dañu ngi ko jublu ba tey baa dégg nga li ma wax su faagi dañee te yaa ngi bëgg mu nekk jawaab ba tey kon dañ koy jasam léegi dama noon idrib abdaka fa yastaqima su faa gi dañee te nga bëgg muy jawaab da nga naan idrib abdaka yastaqim dóor ko yastaqim lu ko jasam waaw ndaxte jawaabu char suñuy nattale lay doon dafa mel da nga ni idrib abdaka in ya in tadribhu yastaqim loolu mooy maanaam wal faa waaye nag loolu du am ci gannaaw naf yi ci gannaaw talab yi lay am nax yoog yooyu wa chartu jazmin baada nahyin an tada in qabla laa duuna taxaalufin yaqa waaye nag talab yi juróom-ñett la du dëgg naf yu lenn la talab yi juróom-ñett seen boole di juróom-ñeenti yëf léegi nag nu dem ci biir talab fekk nax yu moom talab la laa laa takun bii mu wax léegi talab la lam roog nax yu yëpp talab lañ kii talabul fiili la kii talabul tarki la mu ne nag sartu jasamu mu daare o moomu boo xasafee faaga te bëgg mu nekk jawaab nu ni nanga ko jasam loolu mën na am ci gannaaw nax yu de waaye nag day am sart kon moom la ni wa sartu jasmin sartu jasam mu daare o mi gannaaw xasaf faa ni nu la wax baada nax yin bu fekkee ci gannaaw nax yu la ah moom donc sart ba mooy an tada a nga mën a def in baatu in xabla laa la jiitu laaja fokk nga doon a taxaalu fin ci lu dul wute yàqaaw guy xew ca maanaam su fekkee soo ne soo andi woon in mu jiitu laa ni ki illaa tafal nangam du dëgg te te maanaa ya du wuute kooku mooy sart bi dégg nga de maanaam su fekkoon da nga ko ni laa tadrib abdaka fayahraba ba muy daw du dëgg mu ni la soo xasafee faagi te bëgg mu nekk jawaab da nga koy jasam mu ne ah bu fekkee ni li dawlu nax yu la nag sart ba mooy nga mën a def in laa la jëkk feel ba te maanaa du wute fii nag seetal soo ne tey laa tadrib abdaka in laa tadribhu yahrab kon taxaaluf am wute du dëgg soo ko bul bul dóor sa jaam bi soo ko dóorul day daw loolu des na loolu du wax di da nga naan xanaa boog soo ko dóoree mu daw waaye in laa tadrib yahrab soo ko defee maanaam yàqu naka noonu laa tadnu min al asadi dégg nga fa laa tadnu min al asadi fa yakulaka du dëgg léegi ndax yu la pour nga mën koo jasam mu doon nga mën a def in laa te du maana fii nag in laa munu soo ne laa tadrib laa tadlu min al asadi illaa tadlu min al asadi yakul ka déedéet da gaynde gi jege ko mooy tax mu lekk waaye sore ko kay du tax mu lekk illaa tadlu soo jegewul min al asadi ci gaynde gi da lay lekk loolu des na ko bul jege gaynde gi soo ko jegewul da lay lekk ndax loolu wax la loolu du wax loolu mooy wa sartu jasmin ba'da nahyin an tada in qabla laa duuna taxaalufin yàq du dëgg waaye mooy soo ne masalan fa taqulu nga ni ko laa tadnu min al asadi taslam te doo mën ni laa tadnu min al asadi yaakul ka du dëgg maanaam bi mooy tax léegi bul ne bul jege gaynde gi soo ko jegewul da nga mucc loolu moom wax la waaye doo mën ni bul jege gaynde gi soo ko jegewul mu lekk la loolu du wax ndax loolu du wax moo tax kon mu ne la man nga ne laa tadnu min al asadi il illaa tadnu minhu taslam te doo man ni laa tadnu min al asadi illaa tadnu minhu yaakul ka loolu moom doo ko man maanaam mee ko gàntu dégg nga li mu wax loolu mooy maanaa wa chartu jasmin chartu jasam baada nahyin ci gannaaw nahyu dégg nga gannaaw boo dindee faagi te mu ni la woon su in tusqitil faawal jazaau qad qusit soo rotalee faagi te bëgg muy jawaab da nga koy jasam mun la waaye nag loolu bu dee ci gannaaw nax yu la sart ba sartu jasam ba mooy nga xam ne soo andi woon in laa mu dawlu feel ja du tax maanaama soppiku ni ki laa tadnu min al asadi illa tadnu minhu taslam maanaami soppikuwul du dëgg naka noonu ma ngi mel na ba nga naan laa tadnu min al asadi dégg nga fa taslama aywa loolu wax la laa tadnu min al asadi illaa tadnu minhu taslam looloot wax la waaw wuuteeg nag yaakul wal amru in kaana bi gayri fal fala tunsib jawaabahu wa jazmahu qbala wal amru baatu buy tegtale santaane in kaana su nekkee bi xayri ifal ci lu dul siixatul amri siixatul amri rek la ci jublu doonul lafzu ifal kooku falaa tunsib jawaabahu bul nasab jawaabam kon na nga koy def waqbal nangul jasmahoo jasabam fa taqulu nga ni sa noppil du du ismu feelu amrin la waaye du baatu ifal de du- du siixatu feel ndax kii ismu feel la du dëgg sa noppil ismu feel la waaye du baatu ifal soo ko defee nga ni ko uhsin ilayka sax noppil uhsin ilayka mooy jawaabu sax jooju nga xam ne maanaam lamar la te du te du ifal sax uhsin ilayka waaye dooni fa uhsina ilayka ndax lamar bi bu fekkee ni du baatu ifal bul nasab jawaabam ak faa nooy def bu la neexee nag jasab ko sax noppil uhsin ilayka noppil ma defal la lu baax waaye doone sax fa uhsina ilayka du dëgg te kat su fekkoon ne da nga ni ko uskut fa uhsina ilayka mën nga ko wax lu ko war kii ifal la kii du ifal loolu mooy maanaa walamru baat buy tegtale santaane in in kaana su nekkee bi xayri ifal ci lu dul siixatu lamri fikkee firee ko noonu bu dul fi kon falaa tunsib jawaabahu bul nasab jawaabam ak faa ni nga daan def de waaye waqbal nangul jasmahu jasam nga bu dee laf lafsu ifal nag nasab koog faa nga ni ko uskut Hmm? uskut fa atakallama wala uskut fa yasmaa annaasu ah, wal filu bada alfaayi fi raja na- nasab nusib ka nasbi ma ila tamanni yantasib nee na eh, wal filu fiil fi raja i ci yaakaar kooko ci xeetu talab yi la am nañu ne nag raja oog tamanni talab nekku ca waaye nag teewul xas nañ koo lim tamanna warju kadaka nafyu qad kamula ca ñaari bayt ya doon lim adawaat yooyu wal jawaab bil faay wala waaye mu ni nag feel ci nusiba nasab nañ ko baadal raja i ci feel juy tegte raja ni ki laal la baadal faa i ci gannaaw faa laalliya ablugu asbaba asbaba samawati fa attalia attalia feelu mudaari al ñu nasab ko ak faa gi maanaam an judik ci gannaaw faa gi waaye comme an jadu faa kon nasab gi waaw geeg faa gi rek la nu koy wax mu noppal lu dëgg fa attalia dégguloo ni noonu nga ko nasabe ka nas bi maa ni ki nasabu loo xam ne yantami dana yantasi bu day askanu ila tamanni jëm ci mébét yaa laytani kuntu maahum moom it loo ca teg fa afuuza waaw kon feel danañu ko nasab ak an jooju ñu xasaf jooju ci gannaaw faa gi faaw jawaab ci gannaaw rajaa u ni ki laan la wala gannaaw tamanni ni ki yaa layta yooyu yëpp limoon na leen tamanna warju kadaaka naflu ah, mur wanha wa wanhu mur wanha wanhu waarid mur na mu ko tege mur wanha anhu wasal waarid li haddihimu tamanna warju kadaka nafyu qad kamula juróom-ñeent yaa ngoog mooy la ajarooma tënk ni wal jawaabu bil faa i wal waawi jawaabu lan jawaabu benn ci juróom-ñeent yi juróom-ñett yi talab lañu benn bi nafyu la nafyu nag xabar la moom du talab dégg nga wa in alas min xaalisin ficlun utif nasabahu an thaabitan aw munxadif nee na wal ficlu feel dégg nga wal ficlu feel déedéet wa in utifa suñu atafee ficlun feel xaalisun ju sell ba alas min ci lisim du dëgg alas min xaalisin ci lisim ju sell ñu ataf ca feel tansibuhu dana ko mën a nasab an an saabitan judi aji xasaf judi aji sax kenn xasafu ko aw mun xasif wala an ju xasafu waaw dégg nga mu ni la lisim piir ju set yoo xam ni lisim piir la niruwul euh, kile niruwul feel niruwul dara lisim ju sell la soo ca atafee euh, feelu mudaari o feelu mudaari o boobee an mën na ko nasab ju feeñ ak wala an ju ñu xasaf loolu la wax Euh, masalan ma ngi mel ni bayt yooyu wa labsu abaatin wa taqarra ayni ahabu ilaya min lubsi shufuufi maysoon in bintu baxdal jabaru muawiyat ibnu abi abi sufyaan te yaayu yazid ibnu muawiya moom moo doon wax loolu ci xasida boobu muy ñaxtu nee na sol abaa mooy càngaayu baadiya yooyu le wa taqarra ayni ànd ak sama xol di sedd ahabu ilayya moo ma gënal min lëfti chafoo fi ci sol séer yu yaraax yu rafet yi jigéen yi taax yi di sol piis yu piis bu gën a yaraax te gën rafet ñu di ko doggi mbubb nee na man sol sama abba abba diya te sama xol di sedd moo ko gënal a ci xasida bu gudd lu ne mu wax ko ci ma ngi jëkk ni la baytun taxfaqul arwaaxu fiihi ahabu ilaya min qasrin muniifi wa kalbun ya- yambaxu difaana anni ahabu ilaya min qittin alifi wa xirqun min bani ammi naxiifun ahabu ilaya min ciljin aniifi mo muaawiyata nag ñooñi nag ni maa tarakat nii xata jaalat nii iljan xanifan ilxaqi bi il yéefar bu góor mu dima woo su dee iljan xanif fase naa la demee waaye moo jur Yazid nag kon seetal walëbsu du masdar la kooku lisim xaalis la ndax masdarum sulaasi yu jaamit la lañ ca jëlee nag soo nee labisaag yelbas yow yaay mustaqaar yaag fa huwa laabisu nag malbus amma darbun jaamit la masdarum sulaasi yu moom moo doon cosaan bi kenn xarewu ko fenn kenn jëlewu ko fenn moom kay ci moom la ñuy jële yëf yi kon nag lisim piir a ngoog mu ataf ca nag fiil bi walëbsu abaatin wa taqarra ayni an jako jañu xadaf ci gannaaw waaw yi su di su fekkoon ni soo ko taawilee masdar dafa mel da nga ni wa labsu abaatin wa qurratu ayni looloo tax mu dagg naka noonu law laa tawaquu muctarrin fa urdiyahu maa kuntu usiru itraban ala tarabi def nga baytu woowu andi woo ko ah ba tey law laa tawaquu muctarrin su dul woon xaaru gi may xaaru ab ab kaajeeykat معتر الذي يعترض للسؤال ولا يسأل بخلاف القانع قانع هو السائل وأطعموا القانع والمعتر القانع السائل والمعتر الذي يتعرض للسؤال بحاله ولا يسأل حياء دنجل. لولا توقع معتر سدون خارو جماي خارو كي كاجي فأرضيه بما ديكو كونتان لو معنى لغي ياني نسب أرضيه أك أن جوني حذف تغناو فاجي ndax danga ko ataf maanaam fa urdiyahu ak kontaan loo ko da yaa ngi ko ataf ci tawaquu tawaquu mubtada la law laa tawaquu mu'tarin wa irdaa'uhu fa irdaa'uhu boo ko andi woon masdar bi lañ mi ngi ko taawil ah andi nga ko seet ko bon kon maa kuntu du ma nekk usiru may gënal itraaban dégg nga ak bare alal du ma gënal ala tarabin ci ak ñàkk itraab mooy bare alal tarab mooy ñàkk ba amul dara ndax yuqaalu atraba fulanun ida kasura maaluhu xata saara ka turaab tariba fulanun ida ftaqara fala siqa bi turaab tariba taraban atraba itraaban dégg nga inni waqat lii sulaykan summa aqilahu ka sawri yudrabu lamma aafati lbaqaru nee na rey gi ma rey sulayk inni man inni man waqat lii ak rey gi ma rey Sulayk benn jàmbaar la woon ci adda dawkati arab yi Sulayk ibnu Salakata ci dawkat yi la bokk ju- juróomi dawkat yi dàqoon a daw ci arab yi Sulayk summa aqilahu gannaaw ga ma di ko dëye aqalahu yaqiluhu wadaahu yadi kooku ka sawri ma ngi mel ni yëkk woo xam ne yu dara bu dañ koy dóor lamma aafat ba sibee ndox ma albaqaru nag yi maanaam ndox mi bu fekkee dafa soppi ku jur gi soos ko soos wa ko wolof mooy maanaam bañ ko mel ni ku ko seexlu nanguwuñu koo naan nag yi soos ndox mi nangu ñoo naan ñu di ko fajalaan dem ci yëkk bi nga xam ne mooy seen kilifa daal di ko duma dóor a dóor forcé bu naanee rek nag yëpp dikk na aqluhu maatub ala dégg nga soo kon bu fekkee feel ataf nga ko te mooy aqilu mu daari on bile nga ataf ko ci lisim xaalis te mooy xatlu mastar bi dégg nga kon moo mooy mooy li mu la ni wa in alas min xaalisin fi lxutib nasabahu an saabitan saabitan bu la neexoon tey feeñal an yooyu ah dégg nga ah tey waqat lii sulayka summa an aqilahu an jooju mënoon na feeñ waaye mën nañ ko maa kaana li bashar an yukallimahu llahu illa waxyan aw min warai xijaabin aw yursila ci jàngino riwayatu xafs an aasim yursila aw yursila lay jàng kookoo tam noonu la dégg nga wa shadda حذف دو حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى والشذ جننا قياس نك حذف أن جنسب مضارع غدين دي أنجا ونصب أك باي فنصب مضارع ما كوكو نيونا موك في سوى ما مر تي لودول لي باسي لي باسي نك واخنا نو لاكو موي ييغا دون جانغ ليغي فوفو مون من أنجا من نا دم دنگا تي ñu nasab مضارع waye dal شذ جننا قياس حذف أن دندي أن ونصب أن دك نصب مضارع ما أنجا xadafonte an ja des nasab ga des fa kooku néew na fii si waa ma marra ci li dul passé waaye nag du teere faqbal nangul maa la nga xam ne rawaahu adlun aji maandu ci ruwaat yi riwaaya nañu ko jëlee ci arab ya ni waxu arab la ah, jàpp ca rek waaye nag loolu moom jaarut ci qiyaas dégg nga dana la ci misaalal dara fi gayri ma marra maa kawnihi naasibatan shaad fa yuqbalu minhu ma rawahu al adlu rek wala yuqaasu alayhi de wa minhu qawluhum murhu yaxfaraha murhu sant ko yaxfaraha xëy na ab teen la biir lu doon cosaan murhu an yaxfiraha murhu an yaxfaraha Hmm. Ah, yaxfiraha xafara yaxfiru xafara yaxfiru mooy maanaam gas na te murhu sant ko moom gaskat bi an yaxfiraha mu gas ko léegi nag an ja dañ te nga bàyyi fa nasab bi kooku dégg nañu ko waaye nee na bu ko kenn xiyaas axdural waxa ci tarafatub nor mu ni ayaa ayyuha zajiri axdural waxa wa an ashhada ladati hal anta muxlidi ayyuha zajiri yow sama aji jajji ji axdura seetal axdura ana an ja ko ah kooku mooy li an axdura la woon ci cosaan an ja dañ na te mu nasab ko te bokkut ak place yi nu doon wax benn nee na kooku dégg nañu ko ñu ba ko ca noonu ndax wax tarafatu bnul abd ci ci mu àllaqaam ba baytu woowu mu nga ci ala ayu hada zajiri ahdura alwaqa wa an ashhada allazati hal anta muxlidi fa in kunta la tastiu daf a maniyati fa daani ubadirha bima malakat yadi dégg nga wa shadda génn na qiyaas xadfu an dindi an wa nasbun ànd ak nasab mu daare ama nasab ga des fa fii si waa ma marra ci lu dul place yii nu la wax ba mu passé waaye nag du tere faqbal nangul maa la nga xam ne rawaahu nettali na ko adlun ku maandu ni ki inni man waqat lii ak rey gi ma rey Sulayk benn jàmbaar la woon ci da- addaa dawkat yi arab yi Sulayk ibnu Salakata ci dawkat yi la bokk jë- juróomi dawkat yi dàqoon a daw ci arab yi Sulayk summa aqilahu gannaaw ga ma di ko dëye aqalahu yaqiluhu wadaahu yadi kooku ka sawri ma ngi mel ni yëkk woo xam ne yu dara bu dañ koy dóor lamma aafat ba sibee ndox ma albaqaru nag yi maanaam ndox mi bu fekkee dafa soppi ku jur gi soos ko soos wa ko wolof mooy maanaam eh, bañ ko mel ni ku ko seexlu nanguwuñu koo naan nag yi soos ndox mi nanguwuñoo naan ñu di ko fajalaan dem ci yëkk wi nga xam ne mooy seen kilifa daal di ko duma dóor a dóor forcé bu naanee rek nag yëpp dikk na